ci commune Bambilor coowal suuf li dox diggante askanuk mbéy ak homme d'affaires bi di Serigne Soye bu sekk ba tey pënd ba wuree gut donte nemeeku nañu ne am na ay liggéey yu bari yoo xamante ne bii dakkal nañu ko te fay faral di dégg ay cowal suuf ci diwaanu Sénégal rawatina ci diwaanu Ndakaaru ci càkkutéefug njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Faye bi la coow nag mu ngi am ci benn terrain bu toll ci 22 hectares 3 ar 83 santiar te Serigne Soye bu Seck jàpp ni moom moo ko moom ndax mu ngi ko amee ci droit de bail atub 2016 wante askan wi nekkee diwaanu Mbey ak ci village yi ko wër nee nañu loolee amut ndaxte ki fi nekkoon njiitum réew ci Sénégal di maître Abdoulaye Wade moo jëloon pàkk boobu la def ko ci turu état bu Sénégal Abdoulaye Ndiaye di chef de village bu diwaanu Mbey moom nag mu ngay fàttali ci ab ndaje buñ amaloon ak taskatu xabaare ci dibeer gii ne maître Abdoulaye Wade daanaka jëloon na lépp luy matukaay ngir mën a jubbantiwaat rëq-rëq yi nga xamante ne bi nemeeku nañu ko ci gox ya goxaat yi foofule wante itam ca boobule bërëb te waral coow li lépp rek ci turu état bu Sénégal askan wi nekkee ci diwaanu Mbey di rafetlu ndogal gi gi nga xamante ne bii mu ngi bàyyeekoo ci kilifa yu yees yi rawatina njiitum réew mi di Bassirou Diomaye fay lépp rek ngir mën a indi saafara ci coowal suuf li nga xamante ne bii ñu ngi koy nemmee ko fu bare bare ci diwaanu Sénégal ñoom askan wi nag di sàkkoo ci njiitum réew mi mu dugal loxoom ci coowal suuf li am ci diwaanu mbéy bu ko defee mu delloo leen ñoom askan wi li ñu ne ñoom ñoo ko moom wante it di fàttali njariñu ko sàmm lépp loo xamante ne bii askan wi ñoom ñoo ko moom te itam ñu yàgg lool di ko sàkku